jamono yi Khalifa Ababacar Sall xamal waa Casamance ne dina fexe nag ba dëkk boobee bokk ci dëkk yi gën a suqaliku yéenekaay bi ne jamono ji nag ñoom candidat yi lépp lu ñu mën rek ñu ngi koy dig askan wi ngir mën a yokk seen électeur bés bi la journée fi mu toll nii kay ku wax rek jox sa morom Khalifa Sall di xamal baykat yi nag ne dina fexe ba di leen jox nag ab jiw gu ànd ak qualité Pape Djibril Fall di xam ne ci biir yëglekaay bi ne dina gën a gëddal ne rek dina doon lu obligatoire maam booy jaawo di xam le ne man dinaa fexe nag ba kenn ku nekk yëg suqaliku gi nga xam ne rek moom la ñuy amal ci réew Sénégal fi mu toll nii nag digge yaa ngi mel ne tulleeg màlle ci yëglekaay bi di la Soleil Anta Babacar Ngom nag fas yéene taxaw taxawaay gu am solo ci wàllu koom gi rawatina ci yoonu murit ma ngay xam ne ci biir yëglekaay bi nag ne fauteuil yu président bi rek bu leen jàpp ne góor ñi rek a ko yeyoo Boubacar Camara moom di xam le ne Sénégal nag duñu ko seetaan mukk muy tàbb ci loxoy ay fokkat moom Boubacar Camara ma xam fexe ba relation bi dox ci diggante état ak religion mu daal di caa taxaw bu baax a baax El Hadj Malick Gakou moom rek mooy candidat bi nga xam ne moo gën a xam géej gi jamono ji Déthié Fall moom ma ngay àddu ci saafara yi nga xam ne rek bëgg na koo saafaraal askan wa yeewoo ca banlieue bu Ndakaaru Pape Djibril Fall ne askan waa Thiès dañoo yàgg souffrir ci dégâts collatéraux yi nga xam ne rek ñii di way politiciens yi ñu ngi koy amal bés bu yàlla sàkk Bassirou Diomaye Faye moom di xamal waa Sédhiou nag ne bis bu ñu leen falee daal dinañu ko def ab capital économique et culturel lu jëm ci wàllu mënd mi ca banlieue bu Ndakaaru nag ci Walf Quotidien Déthié Fall mii ma ngay xam ne nag ne bés bu ñu ko falee dina doon li ko gën a ñor ngir mu daal di caawut ay saafara des ba tey ci yëglekaay boobee ma ngay àddu jëmale nag ci ndimbal gi nga xam ne rek war nañ koo jàppale candidat Benno Bokk Yaakaar Karim sa Wade jamono ji nag ña ngi koy poussé ngir mu dem fekk ji Amadou Ba ginnaaw ba ñu ko éliminé moom candidat PDS boobee nag jamono ji nag tànneefam rek la ñuy déglu yéenekaay bi di Le Quotidien ne naam nag waa Parti démocratique sénégalais nanguwuñu koo dégg waaye Karim Wade moom ma ngay sàkku militants yi ngir ñu daal di ànd toog rek déglu tey jii ki nga xam ne rek moo di Pape du Soppi bu ko defee mu leeral nag fan la ñu war a jëm ci yile élection enquête yëglekaay ne Amadou Ba jamono ji nag ñëpp ngi taxaw di ko jàppale rawatina waa Bennoo Bokk Yaakaar yi nga xam ne rek def nañu dànk ngir topp ci ginnaawam fi mu toll nii nag ñoom ñëpp ña nga ca bët gànnaar bu Sénégal ca diggante Nioro ak ca diwaan bu Kaolack Amadou Ba moomee nag ma ngay dal ci kaw Diomaye Faye ak Ousmane Sonko ci yëglekaay bi di Vox Populi nag ma ngay xam ne ni Sénégal nag soxlawul ñi nga xam ne rek dañuy def ay caaxaan ak i wax yoo xam ne rek amul bopp nopp amul geen ci yëglekaay bi Amadou Ba di xam ne nag ne mën nañoo def politique nag waaye jaarale ko ci loo xam ne rek dafay jariñ askan wi waaye ñoo xam ne rek fu ñu leen fekk ñu ngay menacé di diffamé mbaa ñuy wax loo xam ne rek dara amu ca ñooñee bés bu ngeen leen falee ci bopp réew Sénégal nag di ngeen màtt seen loxo wi cax ko mobilisation bu takkoo takk la ñu amal ci diwaan bu Nioro ak ci diwaan bu kaw Kaolack Bassirou Diomaye fay di ko tontu ci geneen wàll nag di xam ne ni moom fukki at ak juróom def na ko ci impôt et domaine ni ko grand frère am bi di Ousmane Sonko defee waaye wecc ba tey ci yëglekaay bi moom Bassirou Diomaye Faye nag ne ma ngay dellu siwaat ci fitna gi nga xam ne rek mi ngi jolli ci jamonoy campagne bi xeexoo bi nga xam ne rek ñu ngi koy nemmeeku ci diggante militant yi ay paakaaki jaasi lépp ñu ngi koy génnee ci seen biir yër bi la yëglekaay jamono joojee nag président Macky ma ngay jox suukaru koor ñi di média yi nag Sud Quotidien di xam ne ne nag lépp lu jëm ci wàllu bor bi nga xam ne rek amoon nañu ko ci wàllu fiscal nag kii di président Macky Sall épongé na ko nag daal di wàññi redevance yi nga xam ne rek moo jëm ci wàllu audiovisuel yéenekaay bi ne cadeau bu mujj la boo xam ne rek moom président Macky Sall jox na ko presse bi ñeen fukki milliards ci suñu xaalis mu daal di koy effacer nag redevance mensuelle yu média yi nag mu daal di koy yóbbu nag ba million cinq cent mille francs tàggat yaram ak Rewmi Sport ma ngay àddu ci Jeux africains yi nga xam ne rek Serigne Saliou Dia ma ngay ànd ak confiance laataa ñoo yegg ci demi-finale yeeg seen digganteeg ñi di Ghana jeexaleeg suñu lamb ak combat yi nga xam ne rek